ci le 4 avril ñu ngi ci jëm ci combat boo xamante ne nii mi ngi am ci bis bu màgg ci Sénégal mhm. mi ngi am ci bis boo xam ci la moom suñu bopp te mhm. bu ñu seetloo toog nañu at yu bari làmb ci bis boobu bu ñëwee du ñu am bés bu mag du ñu am mbër yu mag yu ko bëree mhm. mais ren ji yàlla suñu borom dogal na Père Gasson ñëw na macha allah ak façonam ñëw indil ñu combat boobu nga xamante moo dox ci diggante la de Guiers ak Eumeu Sène muy combat boo xam ne nag bu mag la Bijou nag bu fi père Bécaye toogoon du ma def du ma analyser te moom analyser wu. yaag père yéenay def te suma papa mi nii mhm. toog dama bëgg rek moom moo analyser ñu combat bi papa. Mhm. Eumeu Sène ak Lac de mhm. lan nga wax ci combat boobu ndax. ñoom ñaar est-ce que du ñu seetaan élément bi. waaw ba tey ñu seetaan élément ñëwaat. ñu seetaan élément bi ñëwaat père xool ko. ayca ñëw ci combat bi. big tafa. naa ne nag li nga xamante ne moom moo war a am. man xamuma ko ci télé bi xamuñu ko te ñiy seetaan xamuñu ko damay bàyyi ak suñu réalisateur dañoo war a dugal benn xamuma ci ban façon lay lay doon wax naa leen notre credo c'est c'est de vous faire aimer la télévision c'est la 2STV Karajo maa ngi lay bàyyi ak gars yi bégal ñu defal lu la neex. Lekk de guette et le nom d'arène de Papy Cissé, un champion de lutte sénégalaise et de l'écurie wallonne, Espoir est le lutteur le plus difficile à manœuvrer dans l'arène sénégalaise. Très technique et très physique. Il a disputé 17 combats, dont 13 victoires. Après avoir terrassé Mansour Diop 2, Khadim Diallo, Babacar Diallo, Neis, Yekini Junior, Tapha Tine, Issa Pouye, Zors, Tapha Gueye, Mesdames et messieurs, voici la décarte, le puncher de Wallon Arène et le nom d'arène de Mamadou C'est un champion de lutte sénégalaise, fondateur chef de file de l'écurie Tay Shield. Il a terrassé les lutteurs les plus coriaces de l'arène sénégalaise. Tortuel, voici Eumeu Sène, l'espoir de Pikine, l'espoir de la banlieue, Tay Shield. ba pare. mais am nga laaj ma wax ko. kuy <laughs> bon du man nag mbër yëpp si may par exemple. Eumeu Sène c'est un ami. <laughs> xëy na gi jaaxle dégg nga. ça fait longtemps. yàgg na bu baax. Ah. gëj déggante wuñu. Ah. sama xarit la. waaw. Ah. di ko ñaanal yàlla. Mhm. suñu borom may la ndam. ci baax si. ah mais. nañu ragal ragal péete day xañee du dëgg. étape yoo xamante ni tey. Oh, waay naa ko mën nooy ku bëre da ngay daan waaw yi tey la samba ndiyaane ngaan doole mooy bëre midin la nu doo midin la nu yaroo jeen kay ne fa fekk baax booy kere sa baay bakk naa la la jin la doomi gar day ñeme jaan jéen a ngi nii. mais la ko jéen ñemee moo daan lu la jéen ñemee. jéen moo daan lu la jéen xool. ah lu bu ma ñemee ñemee musibaam lu leer te wóor laa la li mu ñemee xamu ko sax. kii ah. daa dugg ci combat ba pare te xamu ko. ah oui. Ah. jéen daa nag ñu ma fi ma jaar. Ah. mais jéen bu xamoon dëgg. Hmm. yàlla xam na ne fii du bunt. jéen jéen maa gën a sonn ci làmb maa gën a tiit maa gën a xoslu. lu tax nga ñeme ko. waaye man kii. su ma ne ko naree ragal bu paree xanaa naa bàyyi kon ñi si kaw xanaa dañ may rey su demee amul lu ma ciy dute wala lu ma ciy hésité ci moom yàlla seede na ko làmb la màgg na jour ko wone ah. ma wax la benn affaire kenn weddiwul ne Eumeu Sène champion la man weddiwuma ko samay morom mu dajal kenn weddiwul ne champion la man je l'accepte mhm. nangu ne champion la ndaanaan la mais boo préparé préparé bu jaar yoon mu wóor na ne yow li nga préparé nii xam nga ne sa morom bu taxaw sa kanam li nga dem fekk li nga bëgg a jël jël ko loolu kese la du leneen ayca merci beaucoup Karajo ci élément boobu